ànd ak kuréel gi nga xam ne ñoom la dénk ñuy saytu aka a toppatoo liggéeyu sëñ Abdou Lahad ak jaar-jaaram akum njàngaleem ci njiital sëñ Abdou Lahad Jaxate nu ànd ceeg sëñ Abdou Lahad Bousso moom sëñ ànd ceeg sëñ Abdou Lahad Bousso maam Asta ak Cheikh Abdou Lahad Ka ak bokk yi ko àndal yëpp tabaarakallaahu nu nekk ci waajtaayu màggalu sëñ Abdou Lahad ni nu ko baaxoo defee ci berne yi nga xam ne bu màggal gi ñëw dees na leen ko daa berndeel ci wàllu xam-xam ak ruux muy jataay ak waxtaan yi nga xam ne dañ koy faral di def ci jikko ak xam-xam ak njàngaleem Sëriñ Abdou Lahad di ko jële ci bokk yi nga xam ne dañoo amoon ak moom ak jaxasoo dundoon ak moom amoon ak jokkoo tey nag mu ñëw fii ci daara xisbu tarqiya euh, ci njiital Serigne Youssoufa Diop hmm. xam ngeen xisbu tarqiya ak Serigne Abdou Lahad kon diggante isbu tarxiya ak sëñ Abdou ak seenu jonjoo la ñu bëgg a ànd ak yéen incha allah bëgg cee waxtaan ak Serigne Youssoufa Serigne Youssoufa ginnaaw ba nu la nuyoo. Hmm. dala la di am mbégte ci fekk si ci seen daara ji di rafetlu seenub liggéey ak seen taxawaay ci yoonu murit hmm. fas yéene waajal màggalu Serigne Abdou seen waaja seen xarit ba. Hmm, ngeen amoon jokkoo ak jaxasoo ci diggante Serigne ak taalibeem waaye itam nag. cofeel diggante doom ak wayjur waaye itam nag njàngaleem moo xam ne jamono yam leen fekk ak fi mu leen indi ku bëggoon a laaj diggante daara xisbu tarxiya ak sëñ Abdou Lahad lan nga nuy wax ci loolee jërëjëf sëriñ Abdou Lahad ñu ngi lay sant di sant ñu tedd ñi nga àndal di yóbbante sunu ziar ci kilifa ga sëñ di ñaan yàgg fi loolu te wér li mu yéenee liggéeyal way juróom mu tedd wa mu def ci lu kawe jortam di ñaanal it magam ju tedd ji Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi lool yàgg gindi yàgg dimbali yàgg wamat murit yi ci li nga xam ne mooy tax ñoom muccuk tey ak muccuk ëllëg di bég lool ci laaj bi ma laaj ndax sëñ Abdul Ahad li mu doon ci nun dafa féete kaw li way jur di doon ci nit ndax dafa mel ni su ma ko doon misaal la ma koy tuddee rek waltu bashir biyal yataama dawaaman ansihim bii abaahum kullahini ndax daf ñoo fekk ñu toll ci jamono joo xamante ne sankute waroon naa mën a am ci nun faw ndax loolu la nasaraan bi waajaloon ku ne xam na eh, li fi lislaam bàyyi mooy nga yar sa njaboot ci jàngaleen alquran yar leen ci diine ñu ràññee xam li yàlla bëgg xam li mu tere xam li ñuy doxe loolu ku ko def ci sa njaboot la ca des bu àndeek ndimbal mën naa mucc xam li muy moytu xam li def waaye njàngum nasaraan dafa doon njàng moo xamante ne bi fi tu bi ko fi tubaab yi di bàyyi dañ cee dugal tooke boo xamante ne liñ ci jublu mooy jullit ñi umpale seen diine nga xam ne amul benn école ci réew mi boo xam ne bi fi tubaab yi di jógee di dem ci indépendance yi bàyyi nañ fi école boo xamante ne dina la xamal sa bopp loolu kon doy na ci tënk te boo umpalee sa bopp ginnaaw boo xamee sa bopp xam suñu borom kon boo umpalee sa bopp <laughs> dara jaroo ko waliyaasu billaah euh, sëñ Abdou Lahad nag 1968 la toog contexte bi di contexte boo xamante ne contexte bu yéeme la dafa ñëw comme koo xam ne dafa fekk seytaane fiir ab fiiram ba mu jekk waajale ko noo xamante ne danaa lislaam yow de jàmbaar nga woon amoon nga ay daaray tarbiya fu ne yaa ngi fa doon def ay jàngu di góor góorlu di yar nit ñi <laughs> waaye tey jii de ngay xam ne moom sa liggéey dootul yomb moom dafa mel ni seytaane waajoon na loolu euh, Sëñ Abdou Lahad nag ñëw ñëwin woo xam ne dafa mel nii tarbiya lu mu baax baax baax bokk ci ngànnaay yi sëñ Tuubaa tarxiya da cee bokk te tarxiya doon loo xamante ne euh, ñun bi ñu tudd xisbu tarxiya ci sëñ Saaliw la sëñ Abdul Ahad ànd nañoo moom fukki at ak ñeent bis sax ci Tuubaa Belal am na mag moo xam ne dafa toog ci wetam sëñ Aatu toog nii ndeysaan am na yàlla suñu borom dolli yërmande ak njëggal ci moom ci barkeb kilifaam googu di Cheikh Abdul Ahad ak la mu ko jaraloon Euh, mu toog nii mag ñi daal di wax sëriñ bi ne ko Mbàkke ñii de utalugoo leen tur boobu daayira étudiant mu la lañ wax mu ne ko sa yoon newu ci bis bu ñu ko waree am rek dinañ ko am kon tur bi moom xamoon na ne daayira étudiant murit la waroon jëkk a tudd dox nañ ci ak moom fukki at ak ñeent yoo xam ne mosu tudd nen lu daayira étudiant murit mbooloo nag mu amul tur ci yoon wi miinuñu ko waaye boobu waxtu bi ab denc la def dugal ci biir université loo xam ne dafa mel ne lu ko làq loolu mu làqoon nag wax dëgg yàlla du dencug como mm-hmm. dencug kilifa goo xamante ne ku jubóog boromam la la mu làqoon moo màgg ba agsi ci loxol sëñ Saliou mu ne seen kuréel bi tuddee naa ko bu tarxiya muy dox ba tey jii ñu xam ne lii lu sëñ Tuubaa fàggu la woon mm-hmm. kon nun ñi ñëpp di ci de dañ ciy jëriñu rek waaye doonuñ ci dara ndax pàggutee fu sëriñ bi la si Abdou Lahad contexte bi mu ñëwee dafa def révolution culturelle révolution culturelle mooy euh, nit ñi daf leen xamal seen bopp waaye ni mu leen ko xamalee moo original ndax tey jii nit bu fekkente ne bañkat la booy nuru nuru lu ab naar di ko addi si lislaam danaan kii dafa maa bëgg a doon loo am naar wala dafa maa bëgg defu poroñ booy nuru nuru lu tubaab ñëw di ko jàngal tubaab dafa naan kii day roy roy nasaraan kon wa maa arsalnaa min rasulin illaa bi lisaani qawmi yi dafa am solo ay nit booy wax ak ñoom dañ da nga leen di wan loo xamante ne dinañ ci gis seen bopp sëñ Abdou Lahad noonu la meloon bu ne asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu lam cay teg yow boo ko déggee ni muy àggee ci sa ruu loolu moo lay wan ne kii moo mën a doon système de valeur mooy ku xool ci moom dinga nga dem loolu mooy seen plan ci loolu ci lañu jàngale yow lu diine l'islam ci noo xamante ne ci ay waxi wolof yu leer nañ danaan la gëm yàlla ak sarti gëm yàlla jàngal la taqwa ragal yàlla ne la ragal yàlla ak nuñ ko mën a déggee nangam rekk la dara lu ñu jëmbat ci xol di ko suuxatee ndoxum imtisaalul awaamiri wacc naabul manaahi ah mu ne soo koy def garab ga dana màgg dana meññ te la cay juddoo ci muy muy muy ci garab googee kenn mënut a xam nu mu toll ci loo xam ne àdduna ak àllaaxira di la jàngal ngor di la jàngal lan mooy jullit di la jàngal lan mooy mooy jom di la jàngal tamit bëgg yàlla di la xamal ne la ragal yàlla des na ko wax topp yàlla des na ko wax jaamu yàlla des na ko wax waaye dara mënu cee sotti ndara de du ginnaaw boo bëggee yàlla ba noppi. mënu koy wax ñuy xam ne nekkete loo bëgg it da koy topp da nga cay ne nga xam ne léegi sa yitte dootul nga nekk ci sëriñ bi tey ji nekk ci leneen da ngay wan ginnaaw lépp moo tax li sëñ Muntaxa di wax naan sëñ Tuubaa kenn mënu koo liggéeyal ndare du ginnaaw da nga wan ginnaaw ba noppi door wutali sëñ Tuubaa loolu sëñ Abdu Lahat daf ci yoon woowu di ñu ak jaayante jaayante it doon loo xam ne ci lañ xam ne yoonu murit mooy lii di ñu xamal it lan mooy liggéeyal sëriñ Tuubaa ndax liggéeyal sëriñ tubaa dem na ba xamal ñu ci lu tax ñu xam ne Euh, lépp lu baax mën nañ koo def ni ko jullit yëpp di defee ndax moom la sëñ Tuubaa bëgg waaye sunu yaakaar ak suñu ngëm ak sunu wóolu mën naa dale fu ne di bërëngu waaye bu agsee ci sëñ Tuubaa fa la yem loolu lépp sëñ Abdou Lahad di ñu ko def muy loo xam ne dafa yéeme yamu ci di ñu soppi ndax tey jii bu fekkente ne euh, nit ki yaakaar na ne am na yenn jikko yoo xam ne nasaraan yi ñu ngi koy yor wala nit ñi nga xam ne nit àdduna lañ dañ koy def mu wan la ne la Touba gii de tere naa fi nangam. tere naa fi nangam. tere naa fi nangam ngay xam ne ah yooyu gi tere Touba de kon yow murit ginnaaw fu mu dëkk Touba la ko bëgg a jàppee kon da ko faa war a moytu. nga commencé xam ne ah nekkati kon nii la murit war a mel. parce que l'islam mënta yem ci moral. maanaam ci digg naan góorgóorlu leen nangam naam ci moral rek loolu du sotti. foofu mu am ab atte boo xam ne nangam ko ko def nangam. ndax seen laat àggoon na ci daan wax naan. naan euh, wala taaxus ko xima raafa yàlla sunu borom mi koy wax moo man yërmande ñëpp waaye xam ne ku tooñ waree su ko yërëm a tax xam nga loolu lépp day jàngale ne euh, ku ñu war a àtte bu ñu ko waree teg yoon nañ ko teg ci yoon loolu si Ibrahima moo ñu ko jàngal di teyit it doon koo xam ne euh, ba ci sax nooy takkee soxna ba ci noo koy seetalee ñun tey jii ku ñëw ci biir daara Hizbut Tarqiyyah li nga xam ne bare na ñun lu ñuy dégg nit ñi di ko def ñun xamuñu loolu ndax sëñ Abdou Lahad jox na sëñ aatu soxna ba mu koy fas sëñ aatu yóbbu ko man loolu ci lañ njëkk xam ne nekkate kilifa day fasal ki mu yilif ndax tànn ki nga xam ne mooy sa kilifa moo gën sa tànn bopp alxeyr fi maxtaara lawul muxtaaru xam nga xam ne yow tey lu baax li mooy li nga tànnal waaye nekkul ci li nga tànnal sa bopp loolu yemu ci ñoo ko moo ko seetal moom sëñ Abdou woo ñu ñu jóge Ndakaaru ñëw fii ci mbaar ma mbaar moom ba ñu fa ñëwee toog na jàng kaamil suñu kanam ñun ñu yor suñu kuréel xasida di jàng nga xam ne euh, bernde yeeg teranga yi al xasidaa ko gunge ba jant bi soo xewi aada yi ak yi nga xam ne moom lañ ciy def ak ay lang ak ay ay ay ay yebbeeg yu yëpp mu wan nañu loolu du doxalin loolu sëñ Ibrahima moo ñu ci formé euh, jël soxna it di ko jël daal di jël li nga xam ne ñaar téeméer la daan wax wala téeméer ak juróom fukk ci li nga xam ne mooy cen te it jàngale ne waree su la téye soxna si ngir naan cen gi ngir ñu xam ne rek dañ koy yombal ngir barke am ci kon loolu lépp moo nu ko jàngal mais yamu ci sieblaat dafay koo xam ne euh, ni mu ñu melal ñun firiwu ne dafa ne ñu sol leen sama yére yi wala mel leen ni man nii déedéet dañ ko gis bu wolofe rek mm-hmm. gis ko mu murite rek mm-hmm. ñu bëgg ko bëgg gi nag moo indi lii lépp waaw kon Hizbut Tarqiyyah firiwul ne ku fi ne euh, da ngay sol baylaat par force loolu déedéet bëgg gi moo doon loo xamante ne ñëpp bëgg bëgg lii ndax euh, dafa nuru yëfi murit Sëñ Abdou Lahad moo ñu jëkk dalal ci Touba fat ñu dimbali ñu dinu berndeel euh, ñëwaan këram bernde ci lañ ko jëkk xam daf lay teral ba yow doo bëgg su yëpp laat man yaakaar naa ne euh, man mii sax ñooy génération bi ñëw ginnaaw ñoom sëñ atu ndax ñoo sësoon ci ñoom waaye su may ko ay 1982 83 84 wax dëgg yàlla su ma ñëwaan Touba su ma guddee ba fekk ñoom sëñ Abdoul Hadj Dia tëj bunt bi euh, euh, buntu kër gi ci niimaa yi rek nga daan mën a fanaan ci penc mi ndax amuñu woon fenn moo tax ma tàmbalee samay wax ne moom daf ñoo fekk ñu jilim xamuñu kenn amuñu kenn mu fat ñu dimbali ñu dalal ñu dari ñuy màndal euh, reggal ñu dimbali ñu ci melokaanu murit saadix ba tey ji kenn ku baax ku ne seexlu wooñu ñu baax ñu bu ñu ñàkkee seexlu daf ñoo melal noo xamante ne gis nañ ci ne lii màndargay sëñ Tuubaa la kon euh, sëñ Abdou Lahad amuñu ak payam sëñ Abdou Lahad tey jii su dee ci wàllu éducation adduna sëpp ñoo ko war a sargal ndax éducation dangay ngay melal nit noo xamante ne day xam boppam ba noppi amal nit ñi njëriñ waaye environnement tamit sëñ Blaat tey jii Sénégal bu ñu doon jox euh, ay raaya ci wàllu environnement mën nañ ko jox sëñ Blaat ndax gis nga jumaa ji ñun ñi fi daan fekk place bu ñu daan wax l'ONU nga xam ne ay niimaa la ñu fay toog di waxtaan lu seen yoon ne ak lu seen yoon newul sëñ Blaat ko fi jëlee. ah daal di euh, euh, indi ay tàndarma jamono jooju mu koy def ñu ngi naan ndax tàndarma mën naa sax ci Touba moom kon euh, xeex boobu pour wane ne Touba ni ñu jàppee ndax nanga mën na fi am wala nanga mënu fi am amul lu fi mënta am ci lu baax moom loolu la jëkk wane te loolu waa Touba suñu góorgóorloo suivre exemple boobu mais boo doxee tuuti xool Madinatu Munawara xool Touba war naa nuroo ndax boo ko xoolee ci jumaa ji xam ne ñiy tabax jumaa ji ñu ngi koy bàyyi xel nuróo gi soo ko xoolee ci liggéey jëfi xalifa sëñ Tuubaa xam ne ñu ngi bàyyi xel lépp ba ci nit ñi rëdd ni ñuy génne mbedd yi ak ni ñuy doxalee dëkk bi dara lañ ci bàyyiwul lépp benn la kon tey jii murit bu ne jëlal loolu teg ko ci sa kanam loolu defe naa lu ci am solo la pour ñu xam ne koo koy Sëñ Abdou Lahad ci gàttal daal Sëñ Abdou Lahad koo xam ne mu jaddit la tamit euh, man wàllu baatin xaw ma ci dara te waa kër jàpp naa ne kenn ku ci ne euh, aw xët nga yor xam ne programme mu Sëñ Tubaa waaye moom de xët mu tombeel euh, bi mu demee ba ama tashin am na lu mu wax te ama tashin njëlbeenu la te ku suñu borom wax na ne day yeesal lislaam te ni koy yeesalee ci njëlbeenu xarnu bu ne bu tombeek moom euh, kilifa yi bare ci àdduna moom wax ne ci wàccaayu màggal gi daane ne sama kàddu yi de maa ngi koy tàmbalee ci aousubillahi mina sheytan rajim bismillahi rahmani rahim li kulli ummatin jaxal naa man sakan hum naasiku falaa yunaasihun naka fil amr wadduxon ilaa rabbika innaka laa laa hudan mustaqimin ak wali kulli ummatin jahalna man sakan li yaskuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'ami fa ilahukum wa ilahun wahidu fa law aslimu wa bashiril mukhbitina allazina idha zukira allahu wajilat qulubuhum wa sabirina ala ma asabahum wal muqimi salata wa mimma razaqnahum yunfiqun sadaqallahu alazim ma dellu teg ci waxi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ji mu wax ne tuuba liman balagal mi ata rabiata badal alf sadaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daal di ma dellu teg ci nag waxi xadiimu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ji mu wax ne awalu ma tadaabil xadiimu taalluqun bi man law taqdiimu wa azharal xidmata ama jaysasi wa qalbuhu admaraha min asasi mun salixan fii jaysasi min xayri rabbil wara xadiimu usni xayri wa adxalal illahu fi xuluubi man tasababoo fi naqli i zaaka zaman ixraajahu ilal bilaadi naaiya wa naa la fiha fonq sami saariya kon loolu lay tàmbalee samay wax ci woote màggal gi ci njëlbeenu xarnu bii ñu nekk di amatasin lam ca teg sax lépp duma ci ñëw waaye li tax ma wax lii euh, ku yàlla suñu borom deful ci yow nga bokk ci ñi nga xam ne dañuy yeesal islaam doo waxee nii te sunu gëstukatu hadis yi léeg nga gis ñu xool hadis yi naan ndax hadis bi euh, wér naa wérul xam nga sëñ Tuubaa euh, boroom xam-xam yi ci àdduna sépp war nañ koo respecté te it nañ ko ndax axbarani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ku koy wax doo taxaw naan da ngay lijjanti lii mu wax nu mu demee ak déet ndax dafa taxaw woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te cërub xadimu rasul ndax man wax dëgg yàlla ab dong rek laa fas yéene doon bu dara desul lu wéetaay na doon na doon amit boroom xam-xam yi mën na leen bàyyi seen kees ma dem ci keesu dongo yi ak xeesu daanukat yi ndax wóor na ma ne yonent yi nga xam ne ñoo jiitu woon ñëw kenn ku ci ne loo baax baax baax rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo la yónni lu dëgg mooy xaatimu nabiyyin wa imaamul mursalin waaye tamit ah mooy seen kilifa ñoom ñëpp kenn nattable wu ko kenn ku ci ne seexlu woo tudd xaadimu rasul dangaa ñëw jiitu ko moo tax mënoo wax loolu ndax xamu ko seen naa instant mi nga xam ne sax mënu na mënu naa ne mi ngi ñëw te tur sàngam lay tudd def na ko waaye nag ñi ñëw ginnaawam gisuma ci cër bu gën a kawe cër bi sëñ Tuubaa jël mooy bëgg yonent bi di ko liggéeyal abdullahi wa xadimu rasul kon kookee su waxee ne euh, njëlbeenu xarnu bii di ama tasin si si abdullah daal di wax ne ama assasine ci la yoonu murid juddu dëpp hadis boobu rasulullah sallallahu waxoon ne tuubaa li man balaxal mi atarabita bada alf na ko borom xam-xam yi ñeme jarta ragal waaye di xool naa xadis bi ndax kii naag loolu moom lijjanti àdduna ni mu lay gisee moo gën waaye lijjanti ni la yàlla di gisee moo gën a wóor balaa ngay lijjanti waa àdduna nanañ lay gisee ak loolu amul solo kon loolu dama ko ci doon dugal rek di dellu di santaat euh, tey tey wax ne simblaat moo ñu defal lépp moo ñu teg ci yoon woo xam ne it ñu xam ne ku fi nekkal sëñ Tuubaa dañu war a topp ci ginnaaw ndax simblaat moom njëkk boole booleeg sëñ Saliou dafa mel nii boobu ñu ngi junj loo xam ne ak seekul ndax ànd nañu ak sëñ Abdou Khader lu tollook at waaye sëñ Saliou moom ba ñu liggéeyee ay nu raxmati dafa ne dama leen di yebal ngeen ànd ak sëñ Saliou ci gàmmu gi ndax dama bëgg mu ñaanal leen ak moom gàmmu loolu kon moom defal nañu ko sëñ Atou it li tax ma su ma ci tuddee ñaari baat rek dina dina wone ne nun sëñ Abdou laata ñu defal lépp mës na ko téye tubaab beleel téye ko diir bu yàgg sax waaye ba mu koy yeewi ndax boobu benn mbubb la yor waaye ba mu koy yeewi nee na ko xanaa ne yaakaar nga ne li mën a téye ba da nga yaakaar ne ma laa fàtte mu ne ko dee mu ne ko dama doon suudee sa diggante ak sëñ ba dara du ko mën a yàq kooku nag cëram ci suñu borom cër bu kawe la suudee googu yàlla nañu ko suñu borom wàll ñun ñëpp ñu am ko ndax suudee suñu diggante sëñ Tuubaa rek lañ bëgg lii daal laa laa ci na junj sama diggante sëñ Blaat xam naa ne li wax naan dafay loo xam ne li ma ci dab mooy la ma wax rek fa kay fa ax wi madhan li mux yi wal madhu mux yi lil oqalaay du ma ko mën euh, laakin wanaa dëxër an am nday suxara wañeel asaa bi an masin li jërmi sama ni ma lottee ci laal asamaan noonu laa lottee ci wax si sablaat kon dama ciy barkeelu rek ah, yàlla nañu ko yàlla fayal ci barkeelu sëñ Tuubaa tabaarakallah tabaarakallah sëriñ Yusufa ci waxtaan bu am solo woowu nga ñu indil ci sëriñ Abdou Lahad muy njàngale mu yaatu moo xam ne làmboo na ay njariñ yu bari ñu mën cee jànge lu bari man cee dégg lu bari ndax fi mu tàmbaleeg yéen euh, yarkat dëgg ak nitu yàlla dëgg moo fa mën a tàmbaleeg nit ci tolluwaay boobu tolluwaayu jamono jooju ak tolluwaay boobu nga xam ne ay étudiant jàngkati tubaab te booba ndamoo loolu dafa xewoon mu fekk leen ci barab boobu xëcc leen yéen itam ngeen nangu mu xëcc leen mm-hmm. ngeen dégg am njàngaleem mm-hmm. doy na ci sëkk ngir roy ko ak dégg ko mooy ku leen xool bu ñëwoon tey képp ko di murit mm-hmm. bërëb bërëb sàngam ngay fanaani maanaa lay du leen ci génne <laughs> kon ñeme gi loolu ci jànkatu tubaab ba mu ñemee sol col gu mel nii di dem ca lekkool yi di dellu si dindi ci ñoom ak yares yares googu mu dindi ci ñoom ak dégg ci yéen ak dégg ngeen ko dégg ba ba ba jëlum njàngaleem tabax ca lu mel nii mm-hmm. dégg bu ngeen dégg sëriñ Abdou Lahad am njàngaleem moo indi tey daayira Hizbut Tarqiyyah ba mu àgg fii mm-hmm. ba mu tasaaroo ci àdduna bi mm-hmm. ba nit ñu bare bari ku leen gis nangu ne nit ñu baax a ngi nii nit ñu a ngi nii ay murit a ngi nii nit ñu ñàkki caaxaan a ngi nii kon ci ñàkki caaxaanam googee ca la leen yar leneen li ci am solo bokk na ci maanaa alphabétisation bii xew Sëriñ Abdou dafa rawoon jamono ni mu leen alphabétisé jàngal leen xam-xam ci làkk wolof di leen ko jox ab saa wolof bu mag la woon ci ci googu anam rek mm-hmm. eh, bataaxel yi muy yi muy jàllale mm-hmm. wolof yi mu ko daan def ni muy leeree ak li nga fi nettali ci njëlbeen gi ni leen doon jàngalee tawxiid gëm yàlla mm-hmm. jaxasoo loolu lépp mu leen ko wax ci wolof yéen itam ngeen dégg ko taatan ko ak discours yi mokkal gi ko Hizbut Tarqiyyah di mokkal yéem nañu bare bari ba ci tuut tànk yi loolu it di lu am solo loo xam ne man man def naa wax ne daal is bu taraxiya daaree Sëñ la am njàngaleem la <laughs> jërëjëf kon tabaarakallaahu li nga fi génne am na solo lool xam naa lépp sax doo ko mën wax ndax suñ is bu taraxiya ak Sëñ Abdou Lahad moom moom tabaarakallaahu xam naa kon dañuy ñëw rek ci tombub ñaareel bi mu war a jëm ci Sëñ Abdou Lahad ak alxuraan ak Sëñ Abdou Lahad ak ndax at mu jot dañ koy gungee wóppa wóppa mooy tem tem bu muy àndal tem ren bi mi ngi jëm ci Sëñ Abdou Lahad ak alxuraan boo nu doon dikkal ci Sëñ Abdou Lahad ak alxuraan yan gendiku nga ci am loolu ci dolli jërëjëf Euh, Cheikh Abdou Lahad jërëjëf sëñ euh, Abdou Lahad Ka euh, loolu lu yomb wax la xam nga nit ñu ne lañ seen patrimoine suñ ko xamul dañuy wax développement waaye duñ développé mu ko ndax booy développé wu da nga war a développé wu ci li nga xam ne moom nga am ñun lii suñu alal nga xam ne mooy suñu patrimoine alxuraan la ci la xasida yi jóge loolu muy loo xamante ne tey jii defe naa résultat yu yi am ci àdduna sépp ñuy gis waa Touba di di di di raw ci mokkal alxuraan tari alxuraan bind alxuraan loolu ay firnde la ci waaye day tàmbali rek ndax ñooñu ni ñu leen war a jàppale ak ni ñu leen war a gàttandoog ni ñu war a ni ñu war a promouvoir loolu sax xëj na acteurs yëpp ñëwuñ waaye day fu sëriñ bi Sëñ mën nañu wax ne dafa créer woon benn industrie autour du Coran et des xasaayid industrie mooy lan xam nga tey jii bu fekkente ne Sëñ Abdou Lahad moom en 1977 faggu na daaree kaamil muy innovation kenn xamul woon luy daaree kaamil mu faggu daaree kaamil muy bibliothèque boo xamante ne alxuraan a ko tax a jóg ak xasaayid di Sëriñ Tuubaa ak xam-xam yi nga xam ne l'islam la loolu bi mu ko faggoo gis nañu kaamil alxuraan yi nga xam ne ci biir yoonu murit ci ay daara yi nga xam ne mooy daaray cosaan yi ñi daan bindi kaamil di bind mbind moo xamante ne tey jii euh, mooy mbind yi nga xam ne tey jii mooy référence ci yoon wi ba tey loolu sëñ Abdoulaye liggéey na ci loo xam ne ut ay machine di ko móol créer benn industrie boo xamante ne alal alalam di ko di ko xëpp ñi nga xam ne ñooy bind alxuraan loolu noonu la ñuy développer am réew su ko defee ñi bind alxuraan daal di xam ne bind alxuraan nekkete njëriñal àdduna la ak njëriñal alaaxira loolu sëñ Tuubaa da ko daan def sëñ Musaa Ka mi ngi koy wax nga xam ne mbaakoola ak kajoor fu ne di bind kaamil di ko yët xam nga loolu dafa am solo muy am ñuy defar ay lal yoo xam ne di defar ay kër di defar ay jaafere di defar ay ay feggu di di di defar ay encre yoo xamante ne encre de Chine bii ngay gis nii am na ay xeeti xereñ yoo xam ne ci xeeti gàncax yi amoon ci réew mi ñu ngi ci daan liggéey xeeti eh, xeeti daa daay puur mm-hmm. daaju yu yooleet yu yu yëpp mu doon industrie boo xamante ne dafa doonoon lu am solo loolu sëñ Tuubaa defoon nag simblaat daf ko yeesalaat bi mu ko yeesalaatee kon ñëpp teg nañ ci seen bët ut ay machine mool daaree kaamil ñëw taxaw mu doon loo xam ne eh, dara gënu ko féete kaw waaye yamu ci xaside yi ñu di ko bind muy liggéeyloo ay mag ñoo xamante ne liggéey yu mucc ayib lañ doon def boo jëlee ku mel ni sëñ Modou Diagne ci biir daaree kaamil la mu ko doon liggéeyloo di ko toppaloo ci téere yi nga xam ne la sëñ Fallou doon def doon ko liggéeyloo euh, ku mel ni sëñ Jatara ak ñeneen ak ñeneen loolu dafay liggéey boo xam ne mooy promotion moo tax tey jii ñu ngi gisee kenn ku ne bu la neexee nga muul benn téere te ñi koy topp doo ko doo ko doo ko doo ko doo ko xool loolu xalifa sëñ Tuubaa yi naka jekk dañ koy bañ di ko taxaw di bëgg am ñoo xam ne ñooy topp téere yi ba mu wóor la ne lii mooy li sëñ Tuubaa bind ñu topp ko ba mu wow ñu door koo mën a tasaare loolu jamono jooju sëñ Blaat def na ko muul na ay diwaan yoo xam ne dafa dajale ñi ko war a dajale daje ko dajale ko ñi ko war a topp topp ko mu def ko muul ko indi ko daaray kaamil def ko fa ci kii yi nga xam ne kenn du ne diwaan yi moo xam salawaat diwaanu quraaniya mooy fulkul masoon ak yooyu yëpp euh, bi xayri ayatul quraaniya ak lépp mu liggéey ko noo xamante ne dangay xam ne lii liggéey liggéey bu ko ëpp solo ci toolu Sëñ Tuubaa am mais yamu ci euh, yi rek njàngin ku ne xam ne nañ daan jàngee ci jamonoy sëñ mag bi noo gën a dem ginnaaw bi dañuy jànkati di tàmbale li ci dugal wàllu aada aada nag léeg-léeg toujours bu demee ba tollu fenn fi yeesal da dul mën a ñàkk moo tax ku mel ni sëñ Abdou Lahad bi mu dikkee bis euh, liggéeyloo na ko sëñ Mahib Guèye liggéey bu mag boo xam ne sëñ Modou Mamou la ut am magnétophone bu mag mu enregistré sëñ Mahib njàng moo xamante ne da ko ne na ngeen ko daan jàngee ci sëñ mag bi bu ca dara dolliku bu ca dara wàññiku ndax boobu mennum sëñ may moo ci des ca ña ca bokkoon ci wuur bu jëkk ba daan jàngal sëñ Tuubaa boobu mu jàng ko mais njàng moomu tey jii moom la Hizbut Tarqiyyah roy ba tax ñu naan Hizbut Tarqiyyah njàngum xasida moom Hizbut Tarqiyyah waaye Hizbut Tarqiyyah dafa delluwaat rek ci cosaanal njàngum sëñ Masamba loolu Symblaat moo ko enregistré moo ko def pour bàyyee ñu fi héritage boo xam ne buggul mu réer li ma ciy teg mooy sëñ Abdou ak jaayante gis nga jaayante tudd naa ko sànq waaye dafa am lu am solo lu mu wan murid yi nee na ni gars yi bi sallallahu alayhi wasallam defoon rek lañ def anfusahum wa amwaaluhum lañ ko jox dëgg loolu leeral na ci lu bari daa neen sëñ Tuubaa dafa wax ne def ni saaba yi defoon yonente bi mooy li jafe waaye li wóor daal mooy képp ku ko def ni yi defoon yonente bi mu defal la li yonente bi defaloon saaba yi loolu wax nañu ko jaayante gi itam mu leeral nu ne ñu euh, bu leen kenn jàppe ay daanukat ba tax ngeen bàyyi lii ndax saxaaba yi nii lañ meloon ndax saxaaba yi ponk lislaam yëpp dañ cee nekkoon muy gëm yàlla ak di jëf li nga xam ne moom lañ lislaam santaane waaye bi ñu jëfoon lépp ba noppi nag dañoo wax ak yonent bi ne ko daje ku mel ni yow li gën a wóor daal nañ jaayanteek yow jox la sunu bakken dox la sunu alal ah ngir nga warlul ñu àjjana mu ne leen loolu day amewu ma tontu li sunu borom amee tontu li sunu borom tontu ne inna laa istare minal mu'minina anfusahum am amwaalahum ba aya ji àgg kon jaayante googu sunu borom ba mu ko nangoo ba noppi daf leen laaj der bakkan yi ak alal ji mu tekki ne kilifa gu toog ni sunu borom. la mu la dig dina la ko jox waaye la mu jënd ci yow dina la ko dina looloo waral ah, mu ne ba ba loolu amee rek ñu teg ci ab tuur ñu teg ci diir bu gàtt mu sàkk aw lay indi badar kon suñu boroom xare leen woon badar ngir tuur seen deret dafa bëggoon sàkk aw lay ngir defal leen ngir ñu def la ñu wax ba moom bu defal leen la mu leen wax kon loolu muy lu leer yamu ci mu jàngalaat ñu xam nga foofu loolu boo nee badar euh, bayatul xarb la lay la lay delloo xam jaayante gi jëkk gi nga xamante ne l'islam da lay jaral waaye dafa am geneen jaayante goo xam ne mooy yoonu murit gi mooy bañ demee ba Hudaybiya war a jàng nag li nga xam ne mooy ba mu leen waxee ne xuddimtu min al jihaadil asxari ila al jihaadil akbari nga xam ne leneen la bañ ñëwaatee foofu mu ne euh, dañoo ànd ak moom mu ne leen laa talfahu aswaatukum fawqa sawti nabi ak la ca topp di leen wan loo xamante ne boo ko xoolee danga naan kon euh, maam seex bi Ibra nii de nii muy doxe kon daa dégg doxinu saaba yi yaru murit yaru murit ca Mbàkke Kajoor kon Sëñ la dafa bañ ñu complexé ndax ñu murit boo moytuwul complexé dalay yomb ci addis yu leen di addis di la indi ay wax yoo xamante ne loolu jotewul dara ak yuqub lislaam lislaam da ngay boole fa inni ala sharihatul mutahhara wala alxaqiqatul munawara mu ne chariatul mutahara maa fi lkutubil munazala wal xaqiqatul munawara maa thabata fi lawhil mahfuz sawaun nazala fi lkitab aw lam yanzil bihi loolu kon dafa doon doxin boo xamante ne nit ñi dañ koy xam xam ne yaru murit du ci mën a ñàkk mu jàngal ñu it infaax ba pare jëf ko c'est un milliard cinq cent millions moo ko jëkk ko woote ci bu gàtt mu daje jëm ci liggéey jumaa ji te loolu muy dafa bëggoon wan murit yi ne leen du mën a ñàkk pour ñu xam ne jaayante boo ko defee ma noppi mu am wa amwaaluhum ginnaaw laaju ñu tuur deret kon alal ji moomuñu ko sëñ Tuubaa ko moom war naa mën a yomb loolu kon mu doon loo xamante ne tey jii kuy soññee ci yoonu murid ci loolu ngay sukkandiku loolu kon infaax wan nañu ci yoon woo xamante ne tey jii euh, lu am solo la li may tëjee soo mu ko nangulee dama ko xaw a fàtte tuuti sax waaye damay fàttali wenn waxtaanu si am laat bu gàtt la Euh, mu doonoon Tabaski 1988 defe naa mois de juillet la woon nga xam ne daanaka euh, ci waxtaan yi mujj la xëñ na ndax 89 la defe naa la la la wuy ji suñu borom waaye 88 wi gàtt na. moo dama koy jàng barkeeloo ko ci rek. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. nuyu naa leen yéen mbokk yëpp. maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm. maa ngi leen di ndokkeel maa ngi leen di jéggalu itam sunu waxtaanu tey nag u gàtt rekk la mën a doon warta weesu yit yàlla mi nu moom ni muy jëflanteeg nun ak nu muy doxale nu xam ci aslëf ndax mu mën noo dolli xam fu nu jëm ak lu nu war a def yàlla moom mi ngi doxale rek ci xudratu ak iraadatu kattan ak coobare yàlla rek ko am te ci lay jëfandikoo ci lépp lu muy jëfandikoo wane na it ne yu dabbirul amra mina samaa i ila lardi kon mel na ni loo gis rek mu yegg si fii ci kaw la ko dogale wàcce ko nga dafa wax ne allahu lazi xalaqa sabxa samawati wa min alardi mislahunna yatanazalul amru baynahunna li taalamoo anna allaha ala kulli cheyin qadirun wa anna allaha xat axaata bi kulli cheyin xilman ginnaaw juróom-ñaari asamaan yi bi mu ko bindee dafa bindit ay kemam ci suuf yu tollook moom mbir yépp nag di wàcce ci sa diggante ñoom ñaar kon ni ñu koy wàccee war nañu ko xam ba xam ni ñu sàkkoo ni ñu koy wàccee nag moo di asamaan yi juróom-ñaar la asamaan su ne àlluwaa nga ca àlluwa ju ne jaamub yàlla bu ne am nga ci ab dig ci lu ne ba àlluwa yëpp àgg waaye nag juróom benn àlluwa yi moom mu daal di am lu mu ci wax li mu ci wax moo di li kulli ajalin kitaabun dig bu ne dig bu ne am na téere yamhu llahu maa yashaa'u wa yuthabbitu yàlla dana ca far lu ko soob saxalaat ca leneen wa indahu ummul kitaab yi moom mooy juróom ñaareel bi lenn luñ ci xas bidd dara dootu ko toxal léegi nag mu teg ne yamhu llaahu maa yashaa wa yuthabbitu mu ne loolu nag yàlla du def dara ci neen lenn lenn lu ne dafa am lu mu koy defe lii mu ngi la koy defal ci nga sant ko lii mi ngi la koy defal ci nga tuub mu jéggal la ko lii mi ngi la koy defal ci nga ñaan mu nangul la ko lii mi ngi la koy defal ci nga sàkk sarax lii mu ngi la koy defal nag ci nga am kilifa gu mët kilifa nekk ci ginnaawam te lu mu wax nga def ko kon nag sant war na nu koy def dëgg la naam tuub war na nu koy def dëgg la naam sàkk sarax war na koy def dëgg la naam ñaan war na nu koy def dëgg la naam waaye li wóor naal li wër daal mooy na nanu moy ci sëñ Tuubaa te bañ ko booleek dara moom mi nga xam ne baat bu mu wax ak lu mu bind boo ko teqantalee dana la wóor cëng ne ci umul kitaab bi la jóge jërë ngeen jëf baleen ma xaq jërëjëf jërëjëf macha allah jërëjëf sëriñ Youssoufa ci lu am solo loolu ngay indiwaat lépp rek di wane njàngaleem sëriñ Abdou dayo bi mu toll ci mën a yar ak defar jàpp naa ne ay wéttaloon ay wéttal ngeen woon ci moom moom nag wettal wu ne day bëgg mu niru ko. sëñ Abdoulaye day dox doxin woo xam ne ku amul jom amoo fulla doo mën a ànd ak moom. yaakaar naa ñemeloo na leen lool ba ngeen ñemee doon murit ñeme itam infaq fi sabilillah jooju ngay wax. Mhm. ñeme gën a joxe. Mhm. loolu xamees na ko ci seen i jikko. te mhm. lépp ci njàngaleem la. màggal itam. sëñ Abdoulaye Hadj da ko fonkoon lool wax ca lu ne. jàpp naa ne ki leen gën a nandal gën leen cee joo ba nii ngeen di màggale ñu bare bari di leen ci roy. jàpp naa ne ci moom ngeen ko jàngee. dëgg la. kon da nga dellu si tuuti rek ci sëñ Abdou Lahad ak màggal ak seen digg ak moom ak màggal soo noppee nag kàddu yu soññee ci bis bu mel ni ku toll ni sëñ Abdou ñu koy fàttaliku ak lim jariñ lislaam ji jariñ ko jullit ñi jariñ ko murid yi ku mel noonu bisam di ñëw ban taxawaay la ci am murid war ngir dellu njukkal sëñ Abdou Lahad. jërëjëf euh, sëñ Abdou euh, màggal moom euh, sawar naa ci wax ci loolu ndax sëñ Abdou Lahad xamal màggal. Hmm. ndax defe naa bu ngeen di fàttaliku. Hmm. am nay at yoo xam ne da nga daan dégg sax RTS journaliste RTS di wax ci màggal naan retour d'exil naan mooy sëñ Tuubaa bi mu jógee ci géej gi ndax boobu xel mënut jàpp ci nit ñi nii eh, nit nitu yàlla dem ci exil tubaab bi yóbbu la bis ba ngay dem nga ne mooy sa bisu feet boobu nit ñi xamuñu ne eh, noonu la loolu la màggal gi ëmb eh, waaye moom daf ñu cee teel a yee maa ngi fàttaliku dañ daan def ay banderole yu mag ñu daan bind nga gis di mokkal mu naan la maggal gi mooy bis bi sëñ Tuubaa xëye woon bàyyi ak njabootam ak i taalibeem ak réewam lépp dem liggéeyal yàlla rek tax ko jóg te jamono ya mu koy def sësu na rëkk ci yàlla foo xam ne ñu bari bu ñu fa yeggee noppalu walla wàcc la ñu defee ne moo war waaye duñ defee ne sof ca dara waratin xam nga loolu bu la koy jàngal kon dem gi daf ñu ceeteelu mu ne nag yàlla suñu borom dogalit bis bu saabu bis bi de eh, dikkaatee muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar nattu yi ñu ko doon teg nattu yi yees diisaat diisaay boo xam ne mooy raw bu ko jëkkoon loolu mu ànd ko ak ñoom ba ci juróom-ñaari at yi yi nga xamante ne moo nekk ci géej gi waaw loolu xam nga si laat moo ñu ko doon wax eh, nattu yooyu nag yàlla mi ko ko doon teg moo ko nattaleel bis bi bu doon bisum nattu waaye itam ci la ko teggilee nattu yi waaye moom ba muy dem la màggal la ci sëñ doon wax dama naa defe naa sëñ Saliou ñëwaat na leeralaat ci lu bare mu doon benn benn baat kon sëñ moo ñu jàngal màggal moo ñu waxoon ne màggal mooy seen feetu indépendance xam nga indépendance bañ ko waxee sax xam nga nit àdduna yi dañuy yaakaar ne dangay ngay jéem a xëccoo bésu saayir fekk na euh, boobu ñun ñu ngi def exposition di leeral ne indépendance yu jullit mooy li dox sa jëng li dagg say jëng sa digganteeg iblis sa digganteeg fa nafsu wal xalqu wa seytaanu xat faraxoo min xas di ji durriyal yi dunya ab taxat salama xam nga daan nañ def banderole bu ñu daan bind nabiyuna qaada lii mastabiddu bihi ma al jamaati fadlan min masayaaw xam nga loolu jaadu na ñu yëkkati suñuy loxo wax ne bisu bi suñ Tuubaa fukki fan ak juróom-ñett ci la ñu moomee suñu bopp ci la ñu muccee ci seytaane ci lañ amee kilifa goo xam ne dox na suñu diggante ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam dagg jéng yi xat faka kabla xat basa fadla fa duru wala wa nafa jaay déggin woowu moom sëñ Abdoulaye moo ko def ci moom waaye yamu ci euh, màggal moo ñu jëkk a teral ci màggal ba jàngal ñu ni ñuy waajee màggal ndax at mi ñu liggi doon liggéey Aynu Rahmati 1982 83 Aynu Rahmati dafa am liggéey bu mu ñu ci santoon mooy chantier bi bi daayira étudiant murid jëkk am ci Touba. nga xam ne boobu tudduguñu Hizbut Tarqiyyah mooy biir Aynu Rahmati boo ci duggee am na benn kaas boo xam ne dañ ko tabax béton la ci biir mu am ay xasida yi nga xam ne ci la sëñ Touba euh, waaye ci euh, teenu Aynu Rahmati boo fajar naa lar dama yoonoon ak alhamdulilahi wax doowu mu ñaari xasida yooyu ñu traduire ko anglais traduire ko français xasida yooyu biñ ko liggéeyee ba sànc bi pare dafa tasanteeg màggal gi jege te boobu ñun màggal sëñ moo ñu daan daloo ndax kër sëñ Abdul euh, kër sëñ Abdul Baara daan nekk sax ah ñu fa daan fekk sëñ la kon loolu it ñu xam ne ñun moom euh, bañ juddoo rek lañ tege ci loxol ki fi toogal sëñ Tuubaa mu téye ñu it uuf ñu ba bisu tey mosuñoo génn loxol ki fi toogal sëñ Tuubaa euh, at moomu ci la Sëñ Abdou Lahad waxee ne ah fas naa yéene de tubaa gi kenn du leen fi dàq màggal euh, at moom it mu defee ko àll ju kawe dax yëkkati na six cent vingt mille teg ko ci loxol si aatu ne ko nag lii ma la jox nii yenent yi nabiyun mursal téeméeri junni la ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ku ci ne joxel naa la dërëm boo ko boolee calcul ko defe naa jox six cent vingt mille ah. ci boobu ca boobu jamono. loolu euh, ay million ñu bëri la. Mm-hmm. yamu ci. gileem mu jox ñu. Euh, diw mu jox ñu boobu diw du ay bidon vingt litres. Mm-hmm. ba bëri ko deux cent litre moo daan am. Mm-hmm. yu mag yi. Euh, ci magasin Baye Elou Sy la boobee <laughs> ak ceeb. lu ne mu indi ko. loolu. ba mu ñëwee ci ñun ñu ñu màggal màggal goo xam ne man ba bisub tey wax dëgg yàlla xam naa baatin baa yéeme rek mais ba bisub tey màggal gu ñu neexee man dama yaakaar ne xëy na àjjana lañ koy amee loolu yéeme na euh, bis boobu loolu ba mu amee ba noppi ñun bañ delloo ndakaaru ndax boobu amaguñu barab Touba ndakaar lañ amoon barab muy daayira étudiant bañ dajee waxtaan dañ ne ah déwén de nañ teel a waaj hmm. ba organiser wu noo xam ne sëñ Abdou Lahad ñun ñooy ñëw jox ko addiya waaye moom du ñu jox lam ñu joxoon ci lañ dem commencé créer ay étudiants yoo xamante ne daara jën jëkkoon am ñeenti junni lañ daan fay luyaas muy jafe hmm. euh, nga xam ne weer vingt mille francs ak moromam day mel nii euh, nattu boo xam ne dara gënu ko rëy hmm. nga bëgg a waajal màggal ñu commencé na nag dañuy waajal génn ay commission daay na ñii ñoo yor commission viande nga xamante ne dañuy dajale seen dërëm dërëm ba mu mët nag wala ñaari nag wala ñetti nag daal di koy dem moom la ñuy def ci magal gi ñeneen noonu jël ci commission riz ñii commission sucre ñii commission huile di ko def noonu ku ci ñu dajale dërëm dërëm dajale ni day pare ñëw nag ne seen blaat nag yi ñoo la ko jox wii xam nga wala kii xar yi ñoo la ko jox mun a déedéet nag dayeen waa bëgg ndax du ma ko nangu dañuy ànd naaw ànd takk <laughs> loolu moom kooku kooku jaar na fa ak ñun bi ñu formé ci loolu ba tey jii euh, wax dëgg yàlla boo jëlee daaw liñ jox sëñ Muntaxa mi kon loolee sëñ Abdou Lahad loolu mu jàngaloon ci la juddoo ndax daaw màggalu daaw jox nañ sëñ Muntaxa juróomi téeméeri xar nañ sëñ Muntaxa juróom benn fukki nag bu ànd ki gëléem te jotewul dara ak di ko togg di ko yóbbu xam nga loolu kon li liggéey boobu mi ngi dox te dañ daan soññante di wax ne dina mujj doon loo xam ne ay gétt yoo xam ne kenn ku ne ci ñun say doom wala say sët dinañ ko def di ko indi ci màggal kon loolu defe na jàngale màggal la boo xam ne simlaat jàngaluñu ko rek ci wan ñu ne màggal nii la waaye daf ñu ko dundloo ba noppi it xamal ñu ne ñu màggal rek mooy bis boo xam ne yow mal xiyaam dina dekki mm-hmm. ndax euh, àjjanay bani bani Israël jox nañ ko sëñ Tuubaa mm-hmm. addiya mu delloo ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci teraanga mm-hmm. ne ko ñu toppoon ci sama ginnaaw di ma liggéeyal rus naa yomal xiyaam ñu dëkk kër goo xam ne taxuñu woon ñu bind ko mm-hmm. kon sëñ Tuubaa ngoo murit bu ne it nee na jàmbat ga bu fi lu ne ba mu des mbiri àllaaxira ah. sëñ Blaat moom wax na loolu pour wane ne xoolub murit di yaakaar ne sawara la jëm ku koy def ku ne kooku ñun ñëpp war nañ dajale nday ne am na fële kuy gis murit daal di wax ne kii sawara la jëm kooku dañu dafa war a yéem àdduna sépp ñu ne kéemaan a ngi nii xam nga ndax dafa dem ba wan gaay leen nañ am jom te xam ne gor soo mës a gis mu dee fi barab terangaa ko fa boo leen di soññ doo leen soññ ci ragal loo leen naan sa war nga jëm da nga leen di ci ne gor soo mës a gis mu dee fi barab terangaa ko fa rey te sëñ Tuubaa mi nga xam ne moo ñu teral am na bis nee na yowmal xiyaamatil akbar bu nit ak jinne ak malaayka teewee yàlla suñu borom daal di wax ne rasulullah sallallahu alayhi wasallam yéen euh, daal di ne rasulullah sallam ne cëpp ne lan bi yaawu yi ak mursaloona yi féete leen ma fii yéen alxuraan wax na ma seen mbir saaba yi yéen ma fii maa ngi yéen a àndoon ñi nekkoon boroomi jamono nag jóg leen ngeen natt seen àndaar ba xam dina buur wala du buur ñu ne ñuy jóg di natt ku ci sa andaar buur ñu yëkkati la di la tagg di la tagg nit ak malaayka nit ak malaayka ñëpp gis ko ku ci sa àndaar bañ a buur di la tànc mm-hmm. ah, ba nga ne gàcc ma yóbbu ma sawara moo ma gënal lii ñu may def mhm. ñu door laa cëppeel jàll ci sa morom mu ne nag sëñ Tuubaa daa bëggoon bu ñuy lim ba agsi ci aw turam kon xam nga ci li ma doon wax ne ci euh, ñi moom jamono ci la bokkoon mhm. waaye moom bokkut ak ñi ci des mhm. mu ne bu ñu agsee ci turam moom bala moo jóg nee na ñi ko yàlla booleel muy njaboot gi muy murit yi ñooy jóg par kenn di def la ñooñee doon def di def la ñooñee doon def def la ñooñee doon def bañ ne moo ana ki nga xam ne bi ñu tuddee aw turam ak léegi waa këram rek ñooy jóg di def jëf ji te moom jógoo ko mu ne tur baat boobu rek nee na lu mu mës a def di ci sonn baat booboo taxoon te nee na am na ko ba noppi nag ku bokk ci ñu ko amal nag nee na nga xam ne féete nga ko fenn mm-hmm. kon tey ji jëfe ndigal bàyyi tere mm-hmm. mooy tàmbalee duy sa àndaar ngir bu boobaa nga ne sëñ Tuubaa teral nga ma de mm-hmm. waaye fas naa yéene li may doyadi doyadi lii ma am a kës néew sama kookos ndox sii def naa ko ci sa njañ la ko ci loolu dafa baax trop ci ci ci ci bés bu mel noonu euh, moom moo ñu jàngal loolu euh, li may li may li may li may tëjee mooy dafa mel ni man dama jàpp ne Sëñ dafa am euh, dignité bu mu jàngal murit yi te ñu toll ci jamono joo xam ne nag nañ ko jël def ko suñu rësumaan ndax murit kenn amul njëgam sëñ tubaa rek ko am sa ngor gi nga jaay sëñ tubaa mënoo wëlbatiku fu ne nga ne naa ko fi tayle ngir bëgg dara ci àdduna kon sunu digganteeg sëñ tubaa dañ ko war a téye foo xam ne bëñ bi mujj ci bëñ yi ñu koy wax roog seen ku la ne ngaangal lànkal loolu jamono jooju lañ toll ndax nit ñi àdduna day tax lu ne ñu nangu koo wanteer te loolu amul solo tey jii politique bi sax sëñ Blaat demoon na ba bëgg a salte mu wan murit yi ne leen politique bu mu leen yàqal seen digganteeg seen Tuubaa seen digganteeg seen Tuubaa moo ko féete kaw. kum mënta bàyyiloo politique it wane na ne sama diggante seen Tuubaa moo féete kaw. kum mënta bàyyiloo syndicat it wane na sama diggante seen Tuubaa moo féete kaw. ndax yooyu yëpp dafay ay xeeti taqalikoo. wala tafarraxoo yi muy wax. dafay ay xeeti taqalikoo yoo xamante ne àdduna. moo ko indi te dafay ñëw yàq suñu pas-pas. dañu gis ñaar ñu bokk sëñ Tuubaa ko bañ a bokk parti tax ñu mën a jàkk jàmmaarloo ne dañuy reyante loolu moom ku xam dara du ko def ku xooloon badar euh, laa tajidoo xaw man yuminuuna billahi man haadallah wa rasulahu walaw kaanu abaawahum aw abnaawahum aw ixwaanahum aw asiratuhum ne la ulaay kataba fi xulubihimul loolu mooy melokaanu murit euh, na ak dëgg waaye ngëm a tax ak pas-pas waaye du affaire politique. dëgg sëñ na Omar ndijaayam Abu Xuseyfa baayam te loolu lépp li muy jàngale rek mooy wane ne l'islam moo gën a dëgër kalimatullahi it xiyal xuna yee moo féete kaw lépp tey jii loolu boole ñoo ko sëñ Tuubaa ngay wulu di ko leneen lu doye di di la di la di la yàqal sa loolu loolu ko xam du ko def murit yi nañ gën a boole seen bopp ci lépp te xam ne euh, mbokk gu jëm fenn ak ànd goo xam ne jëm na fen boo xam ne euh, doo ngeen ànd ba mu yàgg nar a tàggoo mooy ànd boo ko yaakaar sëñ Tuubaa bu dee màggal gi nag moom màggal bésu sëñ Blaat bi man dama ciy ndokkeelaat murit yëpp xam ne sëñ Blaat euh, defal nañu loo xam ne ñun mënuñu koo fay waaye liñ koy fayee nag man xam naa ne moom mësta yittewoo ci boppam dara lu dul nee na lu ma fi toog giir ba fi toog yëpp duma ma leen wax mu Abdoulahat nee na sëñ tubaa nee na rek laa leen di wax lam ñu doon wax ci sëñ tubaa nee nag nañ fexe ba mu ne ci ñun loolu nañ fexe ba mu ne ci ñun ci bëgg lu baax di yéene lu baax di wax lu baax ci jëf lu baax waaw ku yàlla suñu borom mën loo nga mën a ñëw saafonteeg njabootam gii taral leen ziyaar leen jël sa adal addiya jox leen feddaliwaat sa kóllëre sa diggante ñoom nga def ko boo nekk ca sori sa it la nga ca mën ci lu baax nga def ko loolu tax xam ne yàlla suñu borom moom foo defee lu baax rek mun naa agsi ci moom lii daal laa ne woon moom naa ko daa ko ci seere tey sant nag commission bi ci liggéey bi ngeen def ndax murit yëpp la war mm-hmm. ñun rek ñun Hizbut Tarqiyyah waroon nañ ñu def liggéey bi ba mu àgg lu mu laaj ci ci investissement yit ñu def ko moom àgg it ñëw jëbbal ko euh, ki nga xam ne mooy njabootu Sëñ Abdou Lahad rawatina sax jëkk koo jëbbal moom lu mun Mountakha ndax xam naa ne tey su ma ne woon ku jiitu ci njabootu Sëñ Abdou si Sëñ Mountakha laay tudd tekki seen siid yi loolu kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Serigne Youssoufa ci waxtaan bu am solo boobu nga xam ne indi doon nga nu ko muy waxtaan bu fees dell ak njariñ ñu gën cee xamee rek ne Sëriñ Abdou Lahad léppam xam-xam yarkat la bu mag boo xam ne képp ku gongi koog moom da nga ci jëlee loo xam ne mën naa defar àdduna ak li ci biiram lépp tabaarakallaahu kon mbokk yi lii mooy jataay bi nga xam ne moom lañ leen indiloon jëlee ko ci daaray xisbu tarxiya muy mbooloo moo xam ne defarub sëriñ Abdou Lahad la bu ngeen dégloo waxtaan bi da xam ne sëriñ Abdou Lahad ni mu jàngalee xisbu tarxiya lépp diine la da doon tatbiix ay aayaat ak i ahadis ci seen biir di ko wax ci wolof kon bu Tarqiyyah boo leen gisee ak seen col yooyu ni nga miinee aaday naar jàpp ne kuy dund diine yére sangam la war a sol na na biir ne ay nit a ngi nii ñuy dund sunna di ay murid saadix te njàngaleem sëñ Abdul Ahad moo ko def ci ñoom ndax lim leen daan yare lépp alxuraan la ndax sëñ Abdul Ahad xam ngeen diggam ak alxuraan yàlla daan tibb di leen jox hmm. kon mbokk yi li mooy li nga xam ne moom lañ leen jëleli woon fii ci daara Hizbut Tarqiyyah ànd koog euh, lajnata saxaafiya bi nga xam ne ñoom la sëñ Sidi moom sëñ Abdou Lahad di liggéeyloo ci mbirum sëñ laxat di ñaanal sëñ Sidi Mbàkke mu yàgg fi loolu te ànd ko wér di ñaan suñu borom may nu kattan ak euh, tal ak fekkee ba nu àgg ca bis ba te noonu ko sëñ fa waxee bu nu ca àggee kenn ku ne mu góor góorlu ba sëñ Abdou Lahad mu bëggoon ci nit ñi te mooy jub ak baax ak tege ci yoon kenn ku ne fexe ba góor góorgóorlu ci loola waaye itam nag